dañuy dénoncer euh, ba ci suñu dernière énergie démarche bi nga xamante ne moom la ñuy àndal président Macky Sall te nekk parcelle Assainies di doxale dañu koy dénoncer ba ci dernière énergie parce que ñun lu ñu bëgg mooy président Macky Sall am ndam lu ñu bëgg mooy président Macky Sall gagné dès le premier tour te nii ñuy doxalee parti bi nii ñuy doxalee benn Bokk Yaakaar au parcelle nous ñuy doxalee ak mouvement de soutien yi joxul président Macky Sall ndam durant les législatives 16 000 voix lañu am alors que parcelle mi ngi am 100 000 électeurs c'est très grave ça te loolu nekkul loo xamante ne lu ñuy arrangé la ñu ŋànk ñi ñi jàpp ñiy jàppale président Macky Sall biir ci biir parcelle liggéeyuñu loolu moom mooy wax ci liggéeyuñu te ñu bëgg a liggéey dañ leen a opprimer di leen tere liggéey di woote di woo ñii di bàyyi ñii loolu mooy li nga xamantene mom lañuy la dénoncer et que ki nga xam mom la dénk liggéey bi fi ci parcel mom dafa wax carrément que ni il ne reconnaît pas les mouvements de soutien mom xamul mouvement de soutien comme nak président Macky Sall dafa bëgg am ndam bëgg sympathisant wu mi yépp jappalé ko mouvement de soutien yépp jappalé ko ba tax mu jox ku melni le docteur Cheikh Kanté mission boobu nekk dama bëgg nga jàppaleel ma. mouvement de soutien nga ànd ak ñoom téye leen ba nga xamante ne fépp ci Sénégal dinañu mën a yokk bu baax a baax a baax score yi nga xamante ne moom la ñu amoon. ñun en tant que mouvement de soutien lu ñu war mooy bootu ci ginnaaw ànd ak moom ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci base yi également di liggéeyal le président Macky ànd ak sympathisant wu président Macky Sall yépp woo ña nga xamante ne mosuñu politique te bëgg nañu président Macky Sall amuñu ku ñu waxal woo ñi nga xamante ne ay président de mouvement de soutien lañ toogoon seen kër yi ndax mer ndax boddi bi ñu leen boddi ndax ñàkk reconnaître bu ñu leen ñàkk reconnaître donc loolu moom mooy li nga xamante ne moo tax tax a jóg la plateforme de forces de l'émergence te ñun pare nañu pour ànd ak moom pour que mille voix yi nga xamante ne amoon nañ ko ci législative bi ñu triplé ko au présidentiel de 2019 jox président Macky Sall ndam bu rëy rëy rëy Et pour loolu nak, ñun lu ñuy wax président Macky Sall mooy na jox cër ñi nga xam ne ñoom yor ay mouvement de soutien diko jappalé ci base bi responsable de première heure yi tok seen kër yi mer né bayé nañu politique ndax yu metti yuñ ñu leen teg injustice yuñ ñu leen teg ndax gestion familiale euh, euh, euh, parti bi ñuy gérer au niveau des parcelles ñu mëna récupérer ñooñu ñëpp

pour euh, remplir fiche yi au niveau des parcelles kenn nanguwul jël fiche ku ñu woo ñu le la du ñu jël fiche ñun nag en tant que mouvement de soutien ñu ngi xaar le docteur Cheikh Kanté joxe le coup d'envoi bu ñu joxe ay fiche ñu wàcc suñuy nit ñu ne le président Macky Sall ndam rek la ñu bëgg le ministre Amadou Ba dafa reconnaître ñi nga xam ne ñoom ñooy mouiller le maillot sur le terrain loolu moom mooy wax ci te loolu c'est un problème boo xam ne dañ ko war a résoudre avant ñuy dem présidentielle sinon président Macky lay yàqal ku bëgg ndamu président Macky Sall nanga nga problème boobu ba pare ñu doog a jàll loolu moom mooy wax ji il faut que véritablement ñëpp booloo taxaw ci loolu jàppale président Macky sàll mu ubbi ay bëtam xam ña nga xamante ne ñoom ñoo ko bëgg xam ña nga xamante ne ñoom ñoo koy jàppale xam ña nga xamante ne ñoom ñoo jege population yi xam ña nga xam ne ñoom ñooy jël seen moyen di ko def ci population yi pour ñu gën ko téye pour ñu gën ko dooleel ña nga xamante ne xaaruñu ci moom dara lu ñu bëgg mooy na leen jox cër na leen dooleel na leen yëg na leen doon seen place ñu triplé score bi nga xamante ne moom moom la fi amoon au législatif